gaay buñ jógee ah si Seydina Ousmane Sonko mu sell mi si li gaay waxoon ne day woote fitna ah daa bëgg a taal réew mi ah, gaay te waa ji jàmm lay dund moom léppam jàmm la mais gaay mu ko sekkal ay nitu fitna lañ ñoom ba muy ñëw si caporal Ousseynou Fall ah caporal Ousseynou Fall bu leen ko waxee moom xam naa war ngeen ko xam waxamul dégg nga soldaar la activiste la lanceur d'alerte la day wax nag si général Thiendella Fall naksi dama naan nag noonu mënoo nekk si benn dëkk boo xamante ne loi am na fi dëkk bee ngi si yoon ngay accuser général wala ngay wax yenn yi dara du la ci fekk kon benn wala ñaar mooy li nga wax dëgg la bu kon waajee lan la war def dañ wara kon continuer di ko mu don wala xanaa gars yi gars yi Sénégal jaxasoo na de ah si législative 2022 yi déglu leen Thiendella Fall. très bien Thiendella Fall je le connais très bien xam naa nit la koo xamante ne nii ay intérêt ay intérêt je l'assume naa nit la koo xam ay ay njiitam. jaral na ko mu def naka suuf noonu Thiendella Fall la c'est un commissaire de police Thiendella Fall après les élections présidentielles la ko Macky Sall nommé général tu es au courant Thiendella Fall moo invalidé Karim Meïssa Wade Thiendella Fall moo invalidé Karim Meïssa Wade parce que ci seen loi boobu ñu ne ci ci code électoral bi ñu ne bu bala nga nekk euh, euh, euh, bala nga nekk candidat da nga nekk électeur ci lañ génne woon Khalifa Sall waa DG ñoo ko def te ka ko defoon moo DSC directeur de la formation et de la communication ba mu ci loolu lañ ko affecté jox ko poste bu neex kenn la faal un ben angle mo lay jox bi nekk ci cadre de concertation bi man j'ai toujours respecté parce que c'est mon commissaire je dis que militaire comme man benn jour ñëw nañ fekk bouteille ndox man man maa do rek sax fekk ñu ne bouteille ndox yi dañ ko tijji quelqu'un qui s'appelle Badiane mu ngi Benno Bokk Yaakaar bokk ci corps électoral Benno Bokk Yaakaar avait accusé ci Ndella Fall ne ko da nga jël ay saafara def ko ci ndox mi pour nit ñi naan ko loolu nag c'était en 2018 ils peuvent me témoigner ñoom Benoît Sambou ñëpp ñoom ñoom ñoom Zahra Iyane Thiam ce jour lii nit ku baax du wax ne nit dafa jël ay jël dafa ci ay saafara yow sama yaay am sa si di bi dafa la waa ñoo doon mais ca ndee la ni mu doxalee ci obéissance moo tax ñooy gàllankoor général bu politique la boo xamante ni lépp lu wàllu politique taxee na ci laal na ci man jàpp naa loolu suñu Ousseynou Fall Ousseynou Ousseynou moo tax ñooy gàllankoor général bu politique la boo xamante ni lépp lu wàllu politique taxee na ci laal na ci man jàpp naa loolu suñu off. gars yi gars yi Sénégal a ngi nii ah Sénégal a ngi nii et la jeunesse la jeunesse. man instant bi nii sax sama yaram bi la sumeku waaw sama yaram bi la sumeku ñi ngi na xolal xoolal bi do bi stoppaat dañuy jukki war rek legi mom jukki rek jukki jukki jukki jukki man mom fii moom Kaporal Ousseynou Fall li mu wax ni mom man parena ci duma ma tek dara duma ci wax dara waaw parce que dama ne man dekk bo xamantene dekk bu yoon la bu bu jaar yoon la bu am ay loi comprendre ngeen nit du ñew wax li général hmm té dara du la ci fekk kon bu fekké dara fekku la ci soit li ngay wax dëgg la té bu fekké li ngay wax dëgg la ki muy waxal koku war nañu mëna xol ay mbiram ah gaay lool la wax han vidéo yi moom ku koy partager ngir yalla wara a yi defal en gros nga partager ko pasa kreatif créative commun la mako ko wanteeruma ko mo promotion comprendre ngeen damay wax rek sànni waaw kon gaay jukki bi stop ah jukki bi stop nak waji nak man dama tombe ci vidéo mais waju waju am waa am taxaway la waa am taxaway la ci rewam waa am setlu la waa am gis-gis la dañ ko war a déglu mu wax waaw lu mu gis ci Benno boko yaakar ci Macky Sall ak enjeu politique bi deglu len ko asalaamaaleykum wa senegal tay mom dama am contentement ak mbégte mu reuy pour defal len vidéo bi nga xamni mom lay def ni ndaxte man maa fi njëkkoon def benn vidéo boo xam ne dama ci doon wax ne kii ñuy woowee le génie euh, politique de l'arène sénégalaise mooy son excellence monsieur Macky Sall il avait atteint son apogée te joxoon naa ay firnde leen waroon ak ay exemple yu mag si empire du Mali empire Songhai ñoom ñoom ñu atteindre seen apogée déclin moo si toppoon ma wax leen ne leen kii nga xam ne moom la ñuy wax le génie euh, politique de l'arène sénégalaise il avait atteint son apogée te ñëpp xam nañ ne apogée moom déclin moo ci topp coalition coalition bi ñu woowee coalition benn bokk yaakaar ñoom dañoo defoon benn loi boo xam dañ ko tudd loi sur le parrainage nee nañ pour euh, rationaliser euh, ñi war a bokk ci élection te loi boobu nga xam ne ñoom ñoo ko voté woon ba pare yàggoon cee dàq ay candidat éliminer ci ay candidat si lu ñu doon filtre tey loi boobu dafa dal seen kaw bu yemoon foofu sax mu neex mais kii nga xam ne moom la ñuy wax Mimi Touré nekk tête de si élection législative yi ñu jëm ci coalition euh, benn Bokk Yaakaar moom moo wax Sénégal yi di ko dégg mu ne loi bi lu mu wax mooy bu fekkee dafa am nombre bu dépassé cette liste est nulle et non avenue moo ko wax ci gémmiñam Sénégal yi di ko dégg euh, benn mbir nag dafay faral di wax olof Njaay day wax ne ni yéene néeg la borom a cay fanaan te yéene boobu nga xam ne ñoom waa coalition benn boo ko yaakaar amoon nañ ko pour faagaagal ay adversaire politique boobu dafa dal seen kaw mais li gën a di neex ci mooy ki ñuy wax aussi Moustapha Diakhaté bokkoon ci ñoom moom nee na waa coalition benn boo ko yaakaar waruñoo bokk ci élection législative yi nii loolu nag xam nga lan lay firndeel ne waxoon naa leen fi aussi ne leen champion buy daanu cuune lay doon mooy maanaam lépp loo xam ne ko doon def mu koy réussir su ko defee day laaj lépp loo xam da ko doon wax mu am indil ko euh, euh, ndam bu ko waxee euh, fitna la koy indil wala jafe-jafe la koy indil léegi nag carte gi leer na nañ fin de règne bi nga xam ne moom la ñëpp di gis képp koo xam ne waxuma la nga am xam-xam politique wala nga nekk expert politique wala nga nekk nuñ koy waxatee man wala kat li wóor ba leer mooy nguur gii nii mu ngi ci fin de règne am mooy maanaam app xamne yalla apalon nako euh, president Macky Sall ak wa benno bokk yaakar ex na apam te ligay findel moy president Ousmane Sonko sa yu doudé baram fenn rek ñepp yi ngut tay dafa attaquer ñi woy wa société civile gis nañ le lendemain wa société civile yépp def communiquer commune pour né dañuy ngañi loolu mais bu fekkone sax fofu la yam amul problème mais tay ki nga xamne moy njitu jewri ñi ku ñu koy wax euh, ki nga xamne moy premier euh, premier ministre de l'intérieur Antoine Félix Diom dafa génne di fëddali njàppalam ak soutien ñi ñuy woowee waa société civile loolu c'est un aveu nee nañ loolu mënul weesu aveu ne liñ doon tuumal wala fu ñu tuut baaraam foofu la parce que tey euh, li ñu seetlu mooy bi nga xam ne euh, lañ ne liste parrainage benn bokk ya dafa dépassé mais ñëpp ñuy woyé société civile mais bëgguñu sé addu ñi dañuy raay ñi di layam layami ñi tay porox ndollu wala ñi bëgguñu sé addu de façon euh nuñ ko waxé tranché leer nañ ñëpp xamné né mbir mi li la ñoom ñëpp dañ ko moytu ba ñëpp tek seen bët moo tax Ousmane Sonko dul fofu baramam té bam fa douté baramam ñoom ñëpp dañoo jéem a rang seen seen dëgg pour wax né ñoo no ñoom Sénégal lañ fa nekkal askan lañ fi nekkal mais li tax sax ñoom ñu gën ñu gën dugal moy bi nga xamné ministre de l' intérieur Antoine Diome def na conférence de presse di len di len jappalé di len soutenir té lolou du reum lolou du c'est pas c'est pas à lui euh, de de de d'encourager de féliciter la société civile nekul won cëram donc tay li ñu mëna wax moy man nak euh, amna ben euh, nahar bu tuti parce que suma sañon vidéo yi nga dama koy def pour yéen ñëpp makoy illustrer ngeen ci mëna niñ koy waxaté ngeen di mëna am illustration yi mais comme aayuma ci logiciel bi moo tax ba li may wax yëpp dama koy bëgg di firndeel ak ay image ay vidéo ak ay ay yoo xam ne day gën a leer mais malheureusement nag amaguma xarañteef boo xam ne mun naa leen defal illustration yi nga xam ne dama sama vidéo yi mais di leen gërëm di leen sant yéen ñëpp wasalaam. na lii rek perte na lii rek xolal lii rek si lii nii rek xolal leeral na xeer yi. sëñ bi soxlawul ngay illustré di yokk dara si ay vidéo mu koy yàq waaw nii nii rek baax na waaw jukki ba ngeen yéen a gars yi abo commentaire waaw yéen moom seen clavier yéenay commentaire waaw man nag damay jukki rek andi vidéo jukki ñu taxaw seetlu waxtaan waaw waaw Baye Assane ah jël leen Baye Assane wala déglu leen Baye Assane waa parti au pouvoir déglu leen waa ji ah waa ji lu ma leen tegal lii nii si génn de. seen discours bi daal ñu ngi noonu rek en tout cas moom gouvernement bi moom na ko leer ni fii lay wane ni mooy président ah, mooy mu continuer de gouverner mu continuer de gouverner tey mobilisation boobu ñuy waaj bu fekkee jox nañ la autorisation mooy yàq nañ réew mi ndax fa gis lu ngeen mës a gis te loolu baaxut ci am réew yëngu bu muy def boo xamante ni day wane dooleem gouvernement bi dañ ko war a xañ no gouvernement bi dañuy jekki-jekki nekk sa àll ba duñ xam duñ leen fa teg gis Ousmane Sonko si palais bi lu leer laa leen wax na xoolal waxu xoolal lu leer la la ne wax nii <laughs> xoolal lu leer la waa ji di teg. Ousmane Sonko di bépp. yëngu-yëngu bu muy def boo xamante ni day wane dooleem gouvernement bi dañ ko ko war a xañ sinon gouvernement bi dañuy jekki-jekki nekk sa àll ba duñ xam duñ leen fa teg gis Ousmane Sonko si palais bi lu leer laa leen wax nag <laughs> buñ def doole dañuy jekki-jekki gis ko si palais bi nekk sa àll ba duñ xam duñ yeboo ñu koy xañ yi nga xamante ni ñu ngi koy woote ndax mobilisation bu wootee mbooloo mu kenn duñ fa xaj bu taxawee li mu wax la nit ñi di bàyyi xel kooku da koy xañ yu baree baree bari ke yalla lu leer lu leer la lu leer la sa way tek lu leer me tamit xagn ko lu bari xagn ko lu bari han wo xaral do la ci génnee do la ci génnee. gars xaral sa way jaagi bi nii ki ma yor Matar la Kagulaar xol deglu len ko xol deglu len ko moog waji Yo yo yo yo, yow yow yow déjà déjà déjà <laughs> yo yo yo yo yo yo yo yo révolté wu contre état yo yo yo yo la yo yo yo yo yo yo yo yo sa yo yo yo yo nga yo yo rek yo nga wax yo même bu yo bi yo yo waxul ak yo Sonko taxul muy wax te Sonko révolté wul ak Sonko révolté wul ak parce que vidéo bi vidéo baa ngi nii de vidéo baa nii gars yi déglu leen muy teg. ku nekk ah, doole bu ko gaaw song yow yow yow yow déjà déjà déjà gars rasoulallah sallallahu alayhi wa sallam neen nañu moytu révolté wu contre état parce que xamna na doole bi yalla may nguur ah ko pour doole bu ko gaaw song mais lan moy sa doole yow Ousmane Sonko lan moy sa doole. peuple bi mo nek ci ginnaaw Ousmane Sonko. peuple bi fi fal bi xolo bi fal Macky Sall xolal moo nekk si ginnaaw Ousmane Sonko sawaay loolu du question dawalal ñu gis dawal yow waxal sa wax rek waxal tuumaa nga yonante bi après nga ñëw si fan doole waa ñaa ngay xool. mais benn instant da nga doon auto glorifié wu. ci benn mbir jeunesse bi man lañu topp man Ousmane Sonko. jeunesse bi ma gérer je man may le grand commandant ou commandeur de cette jeunesse là mais ñu la sanni xet ci jeunesse bi lañ bokk donc commandé wo dara gérer wo nix ay ay MFDC nga fi indi won ay wa ñu kon taw ay mo mfdc MFDC ah, gay gars ma dina rom taw ay nga wax de deug len ko waa gis ñooñu du waa town ñun ay waa day ak ñu dëkk Sénégal dëkk town te affaire town la amee mais ñi ñu gis jóge wuñu Dakar waa ñoom sa nijaay Salif Sadio mi nga ni sa nijaay la mais moo la indil ay rebelle ngeen ñëw infiltré ñëw rajaxe dëkk bi

ba disparaître nga defoon c'est par rapport ak yow Ousmane Sonko parce que ça c'est pas juste avec après tes sorti arrogantes là après nan nga def da nga wat nga yaru da nga sorti def wal fa gis rew ba nepp Ousmane Sonko boy bu rew nga ko yow da nga rew da nga rew boy da nga xamadi tok say moromu bay say grand nepp tok fi nga tok melni amum Sénégalais ah da nga xamadi boy te tapet nga wallahi al azim waxoon nañ ma depuis le début ah waxoon nañ ma bi ngay kii man ma lay jàppale lañ ma ndaxoon waa ji du ma sa génn tàppet la mais Barthélémy Dias moo la may fit wax ma Ousmane Sonko à part bi la baat bi nga commencé affaire aji euh, aji saar bi bi Barthélémy Dias di ànd ak yow wax ma benn génn taxaw di xeex boo mës xeex boo xam ne Barthélémy Dias nekkul sa wet moo lay may fit parce que moom même affaire gel bi nii moo lay jox science yi ñun ay booy taxoon nañu xam nañ nu mu demee ngaaka nga defel nii defel ne mu lay manipuler ah xam nañ loolu ah, léegi wax ni Ousmane Sonko yow wax ni sincèrement quoi yow ban yan ñan la ñan la quoi ñan parce que l'île dafa wone ni mais jeunesse bi elle est affamée hein? jeunesse bi elle est manipulable parce que elle est victime de l'exploitation de l'homme par l'homme justement parce que juste parce de dafa de dafa mar ok et puis dafa diviser loolu kese moo tax jeunesse bi di leen obéir ngeen ciy profiter di manipuler jeunesse bi mais jeunesse bi dañoo fidèle ci Ousmane am na si nag ay dof yoo xam ne c'est sûr que ci internet bi xam nga ñun xam nañ seen stratégie da ngeen def seen stratégie mooy lan da ngeen ñëw ku nekk am ay trente profil ngeen envoyé net ñuy saaga boo xoolee booy bi kalax comme teg ko xool da xool ne nii on tu vois que mais faux la ñu bëri dañ matin da ngay bloqué mais parce que ay faux profil moo ba dam leen di bloqué surtout parce que amul njëriñ nit ki day nëbbatu ci ginnaaw benn ci di bandi bu fekk boobu mais loolu ngeen def parce que surtout yenn sudistes ah, ñu si bëri ñuy saaga da ay parce que dañoo bàyyi Ousmane Sonko manipuler leen ah ñu jël des séparatisme boobu ñu dugal ko ci seen bopp yi ah, joint bi du dara lii li am ni ci Bamba Fall wan na ko ni xoolal li mu doon sóob naan moo jeunesse bi mën la àndal àndul ak moom instant bi xamuñu lan mooy daw ci bopp kan fii gis nañ fi bi ñu jëlee coupe d'Afrique boo yu bëri lañ fi taxaw naan Macky Sall baal ñu Ousmane Sonko seytaane moo ñu jaxase ak yow loolu kay ñëpp dégg nañ ko mais c'est juste des jeunes affamés yoo xam ne école bi ñu war a jàngee li war ci école bi joxuñu leen ko. aire de jeu sax bi ñu war a bi ñu war a foowee gars yi jël nañ ko def ko ay terrain xale yooyu noonu c' est des victimes boo war nga profiter ci ci seen ci seen psychologie instant bi amuñu lan mooy daw ci bopp kan fii gis nañ fi bi ñu jëlee coupe d' afrique booy yu bëri lañ fi taxaw naan Macky Sall baal ñu Ousmane Sonko seytaane moo ñu jaxase ak yow loolu kay ñëpp dégg nañ ko mais c' juste des jeunes affamés yoo xam école bi ñu war li war ci école joxuñu leen ko RDG de bi ñu war a bi ñu war a foowee gars yi jël nañ ko def ko ay terrain xale yooyu noonu c'est des victimes boo leen yërëmul war nga profiter ci ci seen ci seen psychologie instant bi war nga profiter ci seen ginnaaw sax mais au contraire te jàmmi ngeen indi seen doom yi ci biir xeex bi ah ah c' est non du Thierno Diop li nga wax merci Thierno du boy town ngaaka la non eh gars yi dañu wax dëgg ah bu ngeen mer nag concept boy town dafa am quoi. point down dafa am loolu Sénégal nañ ko ñun suñu papa yi ñoo ngi juddoo ay Fuuta ak yooyu mais concept de boy town dafa am suura al balad yu dégg ngeen lu yàlla tiitre ko tiitre ko euh, euh, euh, aaya ah yàlla bu fas war xam neen yàlla yoon yónni yonent bu dul kii town bu jógewul ci town bi ci ville bi balaa ma interprété wa dañuy delluwaat kii dafa dof kii nii boo nga ko fay di ko déglu barke yàlla kii wérul kii wérul de déglu leen ko xool déglu leen lu muy wax mu ne mu ne jamono yi affaire de boy town quoi yow boy town kan la xew yi boy town boy town xoolal mille neuf cent yooyu la mooy jamono ñu moom bi muy rab gaan bi actualité boobu lay dox fi amatul affaire de town instant bi nii nous nous sommes national ñu dañoo ñëw pour andi projet wu moom sa bopp moom sa kom kom moom sa réew est-ce que yaa ngi dégg làkk làkk olof ñu valoriser ko est-ce mu naan booy taawoon taawoon mooy lan taawoon mooy lan ah xale réew mi la wax xale réew mi te booy taawoon yi ah booy taawoon yi ëppalewuñ dara sama gars yi ngay yaakaar ne ñoom ñoom ay common town lañ ko neen koy waxee common town booy taawoon c'est quoi le common town Fini xolal bi affaire yi di xew bi mi leer nañ empire de Mali mo fi nekkoon collaboration hmm and ak tubab bi mo andi senegal ñu wax la histoire moy top nga xamantene ñoy top Ousmane Sonko nga yaakar boy manipuler Ousmane Sonko da mëna a manipuler kenn hmm? Ousmane Sonko da fa mëna manipuler kenn kon xana kon Macky dañu manipuler la waa Ablaye Wade manipulé ñu Senghor manipulé ñu Abdou Diouf manipulé ñu waaw yow nag danga nga ñu bëgg a manipuler kon ah comme que Ousmane day manipuler yow da ñu bëgg a manipuler gars yi déglu leen waa ji si Boy Town lu muy wax mu ne yàlla buy yónni si yónantu sax Boy Town lay yónni. yi Seydou non du Thierno Diop li nga wax merci Thierno du boy town ngàkk la non eh yi ñu wax dëgg ah bu ngeen mer nag concept boy town dafa am quoi boy dafa am loolu Sénégal nañ ko ñun suñu yi ñoo ngi juddoo ay Fuuta ak yooyu mais concept boy town dafa am suura al balad yu dégg ngeen lu tax yàlla titre ko titre. concept boy town ak suratul al balad. sa waay yaa ngi yaa ngi wax yàlla ak yàlla yi continuer lu tax yàlla tuddee ko aaya Ousmane Sonko waaw wéy na ko moytu rek barke yàlla waaw dégg leen sa waay li muy wax lu tax ko tiitre boy town dafa am quoi boy town dafa am loolu Sénégal nañ ñun suñu papa yi ñoo ngi juddoo ay Fuuta ak yooyu mais concept de boy town dafa am suura al balad yu dégg ngeen lu tax yàlla tiitre ko tiitre ko euh, euh, euh, aaya ah. yàlla ras bu fas waram xam neen yàlla mësul yónni yonent bu dul kii town bu jógewul ci town bi ci ville bi messager yi bokk ne la yàlla message bu mës a yónni ci town bi lay jógee parce que lépp fa lay amee boo ñëwee États-Unis nga bëgg bokk mais New York ngay def nekkee da nga bu you know réussir ay kii yooyu industrie yooyu New York wala nga dem Cali mais doo dem ba yenn dëkk yi ay Ohio ak yenn foofu dee foofu ngay dem ndaaka nga boy town bi jaar sa kaw xam kan mooy boy town bi mais mooy Barthélemy Dias moom mooy boy mu jaar sa kaw du question nag waxuma nag parce que damay xëy non non par rapport contexte bi ñuy waxee laay wax ok concept bi dafa am. parce que tout le temps même ñi daan jóge banlieue par rapport temps parce que man dama doon fréquente caaro yi ok en même temps di fréquenter point E zone B zone A yi nga am fépp ay xarit daan fa fréquenter quoi dëkk fa nga si kàmb gi ñu nekk nii kàmb kàmb maanaam kàmb lan laa ko mën a lan laa ko mën a tuddee lan laa ko war a mën a tuddee gars yi mooy complexé. complexe bi nekk ku ñuul nekkee du si moom de comme Matar mi Matar bu leen ko ŋaañu Matar dafa jar maanaam dafa jar ñu dimbale ko ñu dimbale ko nagul ko waxam mais aussi tamit moom mu comprendre ne ñun am nañ xel xalaat kenn manipulé wuñu li mu waxee la ñuy waxee lañuy gis taxaw seet wax si moom affaire de concept Boy Town dafa yaakaar ne Boy Town mooy jiite yow sëriñ boobu lan la Boy Town la <laughs> ah ima man la Iran Ndao <laughs> sawaay sawaay yow tu compris tu n'as compris mu naan affaire de Boy Town yàlla buy yónni Boy Town lay yónni xanaa déggoo suratun balat sa aaya nangam yow yow sawaay sawaay mbaa jàmm ak conférence hmm? al wala nga live activiste nga wala influenceur nga dina leer de comme que gars naa leen ko dinaa leen ne arti xoolal bi ànd ak Samba Abidjan ak activiste bi ànd ak peuple bi waa ji Maxtaar la Kabulaar activiste Samba Abidjan la moom moo wax moo ko wane dégg leen ko. fa ci zone yooyu dëkk Big Town di am ay xarit ma bokkal di dugg point e, sans résidence am xarit partout boobu fa tak damay mën a comparer ñaari mental bi boo fa jógee dem caaro yi ay Pikine affaire damay gis y a une différence de mentalité xam nga gars yi waa caaro yi peut être benn dañu xaw a sax complexe bon avant bien sûr avant ñuy imposé wu après rab bi moo tax sax gars yi imposé wu carrément xam nga ñooy imposé bi yéen ji beeg yooyu ok mais loolu dafa am boo jógee woon town nga ñëw ay caa dañ lay xoolee yenn bët yi gaañ bi loolu dafa c'est une réalité loolu mooy daw gaañ bi ngaaka la moo tax mu daanu ci affaire aji saar bi parce que ngaaka la ngaaka la moo tax Barthélémy Dias di ko manipuler ok ngaaka la

ci leen loxo fu ñu jaare président bi mais président boo xam ni Kalzaa Aliou Ndiaye Diatta mën nañ ko képp ci affaire Adji Sarr mën na la daan yow kon yow ñoom Poutine nag ñoom Macron buñ la si jigéen ñooñu noonu noonu yow buñ la ko taxaa na ngay dee kon parce a un problème ci sa bopp bi da ngay jël jaay réew mi benn yoon gars bi il n'est pas qualifié pour diriger le Sénégal Ousmane Sonko encore une fois Ousmane Sonko qualifié wu lim fi wane yëpp wu chaque jour. oh Ousmane Sonko qualifié wul gars yi gars Ousmane Sonko qualifié wul de man de yi jaaxle naa nag sawaay <laughs> xoolal lii rek jàllaabe koppati soo say ver di wax jamonoy BMC 44 nekk États-Unis naan dañuy wax yow yow xanaa xaw <laughs> Maxtaar man moom xam naa ne moom boo may moom amuñu ko de Sénégal la utuñu compte fictif làqatuwuñu si ginnaaw leen ñoo leen fang daaj taw di wax ak yow parce que yow <laughs> foog ñu wax ak yow te nag fexeel ñëw Sénégal parce que enjeu yi nii jamono ji fi mu toll nii dafa doy waar jamono ji ah, gars yi revanche nationale moo fi am waaw ah, ma fàttali ko nag sa le projet pour ku jot bi vidéo bi ngir yàlla na nga ko jotali sawaay ba mu jot si Matar la Kagulaar waaw muy projet bi Ousmane ko woote nekk ci nit ñu dëggu yi ñu baax ñi ñu bëgg lu baax nationaliste yi ñun ñëpp ànd nañ ne moom sa bopp moom sa koom-koom moom sa réew loolu mooy projet bi toogal foofu nag naan booy town ñun xale réew mi lañu wax xalé yi réew Matar sacré Matar penalty pour diriger réew mi la diriger Sénégal ay discours populiste la deuxièmement fen rek lay def fen lay def ok te yalla chaque jour yalla le ko affaire askan mais est-ce que nous continuons, ñun en tant que peuple di politiciens yi nous manipuler est ce que duñ kon ne ñun en tant que peuple <laughs> tawaay tawaay wax sa wax rek waxal sa wax rek bàyyi peuple. loolu war na am ah. est ce que war nañ nangu loolu peuple bi muy xeex suñu biir dañu ñëw di saaga ay ndey saaga nit ñi ndey ndax kan Ousmane Sonko ah nga saaga nit ndey nga am ci bàkkaar jour ju penc ñu ne la non nga dem bay dugg àjjana mu dese la un pour mu dugg àjjana ñu ne eh, eh, eh, kay kay kay saaga woon ma la kaw laara te moom baalu lool donc moom am na benn point moo ko manqué pour mu dugg àjjana donc sa point boobu yow yow. ba ñu commencé daan saaga sa waajire daa rew ba ndab saaga ko. yow tamit say point ma damay ragal sax Ousmane moo tële la eh, yow parce que yow saa saa yu waxee nga génn damay ragal say point boo taxawee fële maanaam sa àjjana la jar fii affaire de développement la ñuy wax sa waay nga naan ay àjjana safara sa coppite sa jàllaabe yow say point damay ragal sa waa ji moo la ko nar a mottali bu la baaloo ngay ngay ngay ngay. jox ko ci sa tiyaaba yi benn parce que da nga ko yore parce que dafay daw may bakaar you know lu baax bonne action mauvaise action moo fay daw ci balance donc yow est-ce que Ousmane Sonko jaral na la ngay nit yi est-ce que politiciens yi Macky Sall est-ce que jar ñoom ñëpp laa politiciens yëpp A ba Z képp kuy politique Sénégal est-ce que war na la jaral yow jour jugement de nga am problème non sincèrement est-ce que jar na mais jaru ko donc pourquoi gars yi bañ a nit Dieng bi manipulateur la fenkat la kii dañ ko xam wala ko gëmee baax na wala ko gëmul li ci kanam rawul li bët di nga fi ñëwaat di jooy parce que ñu bëri ñu fi doon kii dem ñu bëri sax commencé nañ génn ñoom ñi commencé nañ génn parce que anyway am na ñu bëri ñu wet xam ñoo xam ne woo nañ ma ne ma ok you know what li nga xale fa xoolal dégg nga xoolal lii lii dafa daw yaram bàyyi gars yi na yàlla lii dafa daw yaram en tout cas tamit ñiy jooloo Xalifa Sall gàddu ngeen àq barke yàlla. Eh, Je les, les amis ont été choqués. Ouais, aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. le monde part en Matar waxal si ni jooloo sa borom nga yaakaar lii rafet na nga nekk États-Unis naan nangam nangam yoo xam xamoo xew Sénégal yow li xaw si dëkk bi barke rasulallaahi da laa da laa xamoo nu demee yow instant ne yow mii sax doo booy town yow booy Amérique nga wala grand grand grand jàllaabe koppati Amérique ah demoon Dubaay wala mosoo dem Dubaay <laughs> sama waa ji Ousmane <laughs> Sonko tey eh, sama gars yi sa waaj yi de daa mel ni mooy kii xam ngeen ko <laughs> xam ngeen waaj yi déglu leen waaj li muy taw par exemple préparent le couscous le soir quand elles font araw elles font arawal njaay arawal njaay arawal njaay arawal njaay mbaa mën sa cere neex na jàmbaar ba mun nga moñ sa araw neex de ngeen foo malat defa mu malat defa mu foo mom tamit si rapport yi la boko de ah, sa rapport yi classe mbataar kagulaar la ba leen ko xel barki dem bi moo nekkoon si télé bi mag boy saga la duma ci waxat nak foo malat fombalaat bu ba léegi wéragoo ba nga commencé bo legi dañ la ko nangul nak ndax sa tur ndax artiste bi nga doon kon gars ñu ñëwaat fii ah fi benen jukki la léegi dem aéroport yor iya sama passeport ñu visé ko wala ma am passeport diplomatique ma ànd ak kenn ci yéen ngeen di bàkkoo sëñ Baara mooy sama sëriñ comme xamna ni ma ngay dem mom na ànd ak par force dana dugg avion ci sa passeport visé wuñ ko wala amo passeport amo bi ñu dem ba bunt aéroport police yi xol détecté gis ne kayit yu légal la yor man señ bi ñu ne la ndongoli ana sa passeport nga ne ko señ bi la andal ñu ne la hey ci biti ci parking ya fi amul señ bi la andal kayit yi wor la andal mo fi taxajal yomal xiyaam ku yaakar ni da nga yaakaar seen diw ak nu mën sant ak ku ko mën a jur te lim lay digal defoo ko ndax topp sab nafsu jigéen jabaru jàmbur nga defal ko bagage xale bu jigéen nga defal bagage bagage u jàmbur nga sañ kon nga tux yamba nga tux dorog nga trafiqué xaalis jàmbur nga sañ di naan sangara di def lu bon boo waxee nga jël sant bi gën a garaaw nga waate kooku teg ne moom laa yaakaar te kooku xamu la même bu la xamul te demoo ci diine dara sawara nga jëm yaa ayyuhaa llaziina aamanu laa tattabi'u xutuwaati saytaan wa man yattabi' xutuwaati saytaan fa innahu ya'muru bil fahshaa'i wal munkar wa lawlaa fadlu llaahi alaykum wa rahmatuhu shaaka minkum min ba'di abadan walaakinna llaaha yuzakki man yashaa' wa huwa samii'ul aliim séeréer nee malaka ki ngeen cine ke roga binna fof a geenu ɗom adama kingeenu malake fof roga wuuɗa den ta suɗɗo reñ roga la jiga mi règlement de compte mi fu ɗom adama ke bin uma nda oxu refna yit kam koy kan njiitof yewma um nat fo kulu unasin bi imamihim ta xooy faal wen siriñ faal we duploor wena cheikhu omar سيرين ويتلا تسين اسماعيل فسين شانديل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيدي له من يشاء ويعطي من يشاء وهو العزيز hakim Nous avons envoyé un message avec la langue de ce peuple avec de l'éclairer à égal qui il dit il faut se limiter tout puissant les sages. léegi may bëgg a te dama bëgg a parce que ngoon lañ waxoon waaye. li nga am solo sëriñ bi. Bateala. Ya, dama ko yàlla loolu yàlla defal la nga doon doomu séeréer séeréer bu am jom te xam dara day oyofal xolam te nangul sëñ Ismaïl ak sëñ Cheikh Ndigal ak sëñ Baara mii ñu ñu sàmm waaye li ngay bañ muy gën di dem ci kanam di gën di baax di gën di mag di gën di sel di gën di bëri gaay di ko gën di gëm ñooñu di gën di rafet ngay gën di ñuul di gën di ñaaw di gën di ñàkk. bata bataay dala sa wal barke yalla ni muy wax de xolal nga def ni nit man na tok ci ne dinaan baara faaxe bu ginum tek etik revetik yëg din ma yëg o ya layana moƴa mos boto moƴa mos tin xatan goɗɗe moƴa xa moom njim xa soxna sa moƴa njonge woma to tema moƴango yaf a moƴango ñako teg fen Sénégal a nii gars yi nag dañuy dem fi leen waxoon maanaam Fatou Kiné Fatou Kiné Gueye kon Fatou Kiné après générique bi dañuy dugg deuxième partie Fatou Kiné gay wa di leen wax ne tamit aussi vidéo yi suite suite lay don suite suñuy wax nak dañuy wax rek avancer <laughs> dañ ci delu wat dañuy wax rek avancer kon nga xamee ko noonu léegi dañuy ñëw si Fatou Kiné Gueye nekk xaaju dof ak xaaju nit hmm. Sénégal boo fi nekkee cent pour cent ku wér hmm. dërëm doo ko fi am doo fi lijjanti fukki dërëm rabu réew mi mel noonu ba taa nga rabu réew mi <laughs> kii mooy buusa këtëb Bousse. Sénégal boo fi nekkee cent pour cent ku wér. dërëm doo ko fi am doo fi lijjanti fukki dërëm rabu réew me mel noonu ñi fi sérieux yëpp torox nañ li ñi fi sérieux yëpp xool leen boo leen rek leen di yërëm da nekk xaaju dof ak xaaju nit. yëngu lion national. gannaaw la. Gana Gueye lion national. champion d'Afrique. Gana Gueye. jour bu am tudd Gana Gueye. ok léegi sax nañ moo nekk pare yow xam nga moo nekk pare. waaw léegi booy la nekk. Euh, Sénégalais la. léegi sax euh, ci ci saison bi dafa am benn maillot boo xam te ne dañ leen koy jox mais dafa am drapeau góor jigéen. Ah, waaw léegi daaw dafa ne woon dafa joxoon benn prétexte ne mun koo sol ren mu ñëw mu ne du ko sol coow li nag bàyyi trop. waaw fi mu toll nii kay xam naa loolu gën a jege. Ah, nañ ah, ko daaxal en tant que sénégalais ah, nañ ko daaxal soo ko fii àdduna la. nee naa la man xoolal ñi dem Dubaay di lekk ay jonkoon sax soo xoolal ñooñu man du ma leen wax dara ndax fii non non man man sama man man man li may lijjanti mooy xam nga nit ku ci nekk da ngay sës nit ku nekk yaa moom sa bopp quoi nit ku nekk nag bu defee la dara peut être sës boobu mu sës ñu doon dugg ci gaal bi man melow ma leen de peut être dañoo sës dañoo toll foofu nit am na fu muy toll dina def loo xam ne sax bëggu ko def des fois nga nga interroger koo xam day tux ah mu gis la ngay tux sax mu ne kuy naan tra ah? nga gis ko muy naan nga ne ko damay naan may ma si mu ne la lii baaxul te moom xam na ne baaxul mais peut-être nit ku nekk ak ak fi nga nit ku nekk nattu ak nit ku nekk fa sa tolluwaayam nit bu to am na fu nit fu muy toll bay def benn affaire boo ko mënee woo ndànk ah nga wax ak moom si njëkk ak teraanga teg ko ci yoon bu baax xam nga dina la dégg de mais mun na ko sax bañ a bàyyi ndax moom du xam sax nit nit a ngi def fii loo xam ne baaxul mais moom neexu ko mais mënu ko a bàyyi peut-être nag sës boobu ñu sës bay def loolu loolu duñ ko kalaame kenn yàlla suñu borom mi leen ko teg la ñuy ñaan yàlla mu teggil leen ko man nag wax dëgg yàlla sama yoon newu ci ay góor jigéen ndax man du ma góor jigéen du ma ko def du ma def loolu xalaat la nga wax nii billaay maa xam toll ma la nga xam damay dof dof rek coow gànnagee boobu ngay wax xam naa ko li ngay wax mais dama ne la loolu moom tollu waayam la foofu la toll moom xelam foofu la toll nit nag bu ne lii du ma def lii loolu dañ ko koy may nit nag bu ne da koy def am na ñoo xam ne Euh, si réew mi lañ dëkk juddoo ci dëkk bi te ñu ngi dem waxuma la sax dañuy sol ay mooy góor jigéen ay logo góor jigéen dañuy ay góor jigéen lañu. mais léegi yow loolu ku la fayoon. man dégg nga ko nga sol ko da sol. non ak xel mi ma toll nii ak fii ma toll nii du ma ko def. alhamdulilah peut nag nit nit des fois nga toll foo xam ne nag sa loolu sa sa domaine mooy sa xel mooy toll foofu te loolu euh, boo amul ay mbokk yu la indiwaat mën nga sànku mais man ak loo xam ne duma ko def te dugaluma kenn mu koy def ku koy def nag wax laa ci mën boo soo ko soo ko bàyyiwul. gay agression ya boy Malika revelation lay def ba len ko xel gay nga ñu deglu boy Malika attentivement ci agression lay wax. Eh, ngir li ko neex tay nga nga koy xass ngir la naqari dedet da nga don paree di wax ci mom da doon def li nga xam tay ji mo mo defu bis bi nga demee ba diko ko tamit da dem ba bayyi li defu di def li nga xam defu wul nit man na bon ba yag mu bax mais nit man na bax ba yag di def lu bax suba nga tay gis na ci lu bon kon na ngeen xam nak fi mom sango de roubay taxuta don bay taxutoo doon bëy de bukki yaa ngi ci biir bis bu nu la jigee xeñtu la leen xam ni doo bëy sàngoodeeru bëy taxuta doon bëy na leer ci yéen bu baax a baax a baax gis ngeen nit ñi leen di déglu ay xel lan yor di leen déglu parce que li ngeen di wax ci gémmiñ lay jóge dugg ci nopp xel mee koy traité noonu la demee ah bàyyi leen xel bu baax a baax askan wi ngeen di waxal Babacar Diop lii mu def sénégalais yépp la ko defal waxuma la waa Thiès sénégalais yépp la ko defal jug leen ngeen jàppale ko. jàppale leen Babacar Diop bu baax a baax taxaw ci ginnaawam xam ne tey jii lii muy def bis bis bu réussir njariñu population Thiès la yéen a ngi dee si jakarataay yi seen yaay yi ñu ngi leen di agressé seen doom yi nekk ci dëkk bi di agressé genn wàll gi ñàkk ñàkk ñàkk luñ yóbbu ci seen kër ak ñàkk luñ dafa tax ñuy agressé mais genn wàll gi saay-saay yii di sàcc sunu alal ñoo nekk ci seen ci seen ginnaaw loolu dinaa ci ñëw ab live agressé yi adressé yi démb laa ci buggoon a def ay mais quelque temps rek ma am lu ma am empêché agression yi xew Sénégal ñii di sàcc sunu alal laa wax ñii di sàcc suñu alal am na ci ñoo xam ne ñoo nekk ci ginnaaw nit ñuy def lu ñaaw billaahi wal kitaabi li ma leen wax du ay caaxaan sëfoor ab sëfoor bu nekk ci seen biir moo a ci jox ay information ay élément yu wér ab sëfoor bu nekk ci seen biir gëj na maa def live fan yi yépp maa ngi ci ab liggéey parce que agression yi am Sénégal yéen Sénégal yépp mas mas ngeen a xam ne Sénégal amoon nay sàcc amoon nay caga amoon nay góor jigéen amoon nay agression mais nii ngeen gisee agression yii nii mësta am Sénégal mësu faa am mësu am deux mille vingt et un deux mille vingt deux bi la la takkarnaase te loolu ay nit yoo xam ni fal nañ leen ñu nekk ensemble ak ay nit yoo xam ne ñu ngi ci préfet yooyu ñoo créé lii. bàyyi leen xel bu baax a baax a baax a baax ngeen use seen maay ni moo tax ku ngeen ci jàpp bu leen ni police rey leen ko barki alxuraan agressé yi ngeen di gis ci réew mi ku ngeen ci jàpp rey leen ko rey ay nit ñoo nekk ci seen ginnaaw scooter yu bari yu ngeen gis agression yi ñu koy yor service de mine la la la la lañ ko jële li may wax li may li may wax fan yi yëpp maa ngi ciy liggéey gis na maa def live ñoom ñoo ko créé ñoom ñoo ko créé fekk ci benn benn yi ko doon def ñoom ñoo ko créé ci benn benn yi ko doon def te ku ngeen si jàpp yóbbu ko police lu mën a xew ñaari fan ñetti fan bu ngeen ko xàmmee di ngeen ko gisaat ci benn bi ñoom ñoo nekk ci ginnaaw Antoine Diédhiou waxam joju yep mu genn di funki agression yi nangam kabul yi ñu tak ter bi yooyu noonu yépp ñoom la na leer ci yeen ñom la ñom la Boy Malika gën ah? gis ngeen Boy Malika ki activiste peuple bi la ki do activiste Samba Abidjan xamee lan ko nonu activiste peuple bi la deglu len ko limi wax bu baax gaay agression yu bëccëg yi nii mu takkarnaasee nii xale yi amee fit nii ñu taxaw di ko def tiitu ñu ci ragalun ci di siif téléphone nit ñi use leen seen mayen yi seen mayen te ci kanam tuuti bépp bitik buy jaay téléphone buy jaay ay téléphone Sénégal di nga am problème Nek ci whatsapp yi nek ci réseaux sociaux yi def leen di déranger ta internet bi Macky Sall di wax dakab ndayam mënu ko ci te Macky Sall bëgg orange du ko def day liggéey xaalis la bëgg nit ñi nag bu ñu ay téléphone bu dem jëndi connexion yi ngeen di gis genn wàll sëriñ di nangu téléphone jàmbur yi doomu xaraam yi ñoo nekk ci ginnaaw ku ngeen ci jàpp dagg leen bopp bi ku ngeen ci jàpp rek leen bopp bi amul négocier ay doomu xaraam lan loo gis lu nekk ay nit di ko def rek ñoom ñu ngi seeni xel di xalaat ne mën nañ saa jaar def ci lu ñaaw ñii ñu jiite dul ay nit muy président ministre de l'intérieur ba ci gin ci gën a suufe ay doomu xaraam lan kenn baaxu si loolu ab live la dinaa ci ñëw ma delluwaat Thiès ci Babacar Diop yéen waa Thiès na ngeen taxaw. du ma ci wax de dégg ko.